lan moo nekk ci suuf Serigne Mbaye Sy Mansour bii dafa dem dëkk bu ñoo wax Palmarin fii ci Mbuur am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg mu ne ko am ah, mu ne ko benn doomu sëriñ Babacar bu taxawati ci kaw suuf benn sëtu mu taxawati ci kaw suuf ki moment boobu ci la Pape Malick tam su ñu paree nag ni ci man la ñu jëm si ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo Bahkan ngi tok fi bu ñuy wax abou bakr ja di doomu goor gi ousmane ja mo dan and ak sherif tahir mo gis mam habib si ben rakku mam elaja abdou aziz si mam habib wax ko mom abu